أرت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي أبرنا يبكو نكتر نيوسة أساسانت دلنيانا xéwal yàlla bu mu doon jotak ci yéen seen waa kër ak mboolem jullit te ñu ngi si juróomeel leçon ak darsul xaamis ñu tuddee ko afaalun mooy ay ay mouvement mooy ay mouvement ay geste yamshi mooy mu ngi dox yajiri mooy mu ngi daw yasaadu mooy mi ngi yéeg yenn yanzilu mooy mi ngi wàcc yajlisu mi ngi toog yaqifu mi ngi taxaw kon yi ay verbe la yi nga xamante ne day wane mouvement yi nit ki di def mais kii di cours yi di ñëw dinañu leeral incha allah nan lañu ràññeetle les verbes ci arab an nan lañ koy conjuguer ak yan temps conjugaison moo am donc fii yatawadda yatawaddaw mooy mi ngi jàpp yu kabbiru mooy mi ngi kabbaar yu solli mooy mi ngi julli yarkaw mooy mi ngi rukon yasjudu mi sujjoot yu sallimu mooy selmal la mooy mi ngi selmal tayib bu ne yàkkulu mi ngi lekk yashrabu mi ngi naan yaktubu mi ngi bind yakra'u mooy mi ngi liir yanaamu mi ngi nelaw yusabbixu mi ngi sàbbal yadxaku mooy mi ngi ree yabki mooy mi ngi jooy yaftaxu mooy mi ngi tijji mooy mi ngi tijji yuxliqu mooy mi ngi tëj yaxruju mooy mi ngi génn yadxulu mooy mi ngi mi ngi dugg tayib ñu ñëw ci exercice yi atadribat donc atadribul awal donc lii dañu listé mboolem verbe yi nga xamante ne jotoon ko gis ci biir cours bi da ngeen koy jéem a retenir yusalli mooy lan yakulu yashrabu yaktubu yasjudu yukabbiru yakrawu yëpp jàng nañ ko yanaamu yabki yadxulu gis nga yajri gis nga tayib atadribu thani mooy ñaareelu exercice bi donc da ngeen jéem a def lecture bi donc euh, après ngeen complété sur le faux euh, euh, yi nga xamante ne nekkul fii te mu nekk fii donc yatawaddaw moom mi ngi jàpp yarkaaw xam nañ ko yasjudu mhm. yàkkulu gisoon nañ ko moom mi ngi lekk yashrabu mi ngi naan yu sabbihu mi ngi sàbbal donc yi dangeen fii da ngeen recopier Euh, yi nga xam dafa manqué fii tayib lii may cours bu tey donc euh, di leen jox ndaje euh, cours prochain incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أرت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرم من يسمع يخل أين من ساد وشاد وبال فبانوا هلك الكل ولم تغن القلوب